bonjour asalaamaaleykum mbokk internet yi ñuy seetaan fii ci Evidence TV yéen a ngi ci seen émission bët set émission bii di leen di gunge ci actualité bii réew ak biti réew acca ma nuyu ñi ma bokkal plateau bi Ibrahima lay doore ayca Cruzita maa ngi lay nuyu euh, di am contentement saa su ne di bokk ak yow euh, di nuyu itam euh, suñu mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan saa su nekk à travers Evidence TV Euh, di leen jaajëfal di leen wax tamit ñu dal ak jàmm ci seen émission bët set. Nafi Ba noo def. maa ngi fi Kouzita maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ñi ma bokkal plateau di nuyu mbokk internet yu ñuy seetaan fii ci réew mi ak ci bitim réew di leen bisimila ci seen émission bët set fii ci Evi TV. ñoo prési yaa ngi si jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax naka coonoy. alhamdulilah di leen ko ñaanal euh, di ko ñaanal képp koo xam ne yaa ngi seetaan Evi àddina war nga képp Baye Abdoulaye Thiaw Laye wax ne ku yor sa kurus naan yaa salaam yaa salaam yaa salaam ba bët set te mooyoo nit ñi jàmm du la tax am jàmm kenn ku ne na si bàyyi xel Cruzita bëggee naa j'espère que yeewu ngeen si jàmm et que vous êtes prêts à affronter les nouveaux du jour euh, ñu tàmbali si la revue des titres avec euh, Ibrahima Faye bu jingal bi daanoo lay doon comme niñ koy defee saa su nekk euh, dañuy ñëw rek ànd ak yéen li gën a fës ci yéenekaay yi waaye saa su nekk dañ koy doore rek ak suñu euh, journal bi nga xam ne mooy l'évidence quotidien Euh, bay ci sa wewu tànk laay wax saa su nekk ñun itam dañuy bay euh, ci suñu wewu tànk l'évidence lañ koy doore euh, journal bi xëy ubbi ci xëtam mu njëkk limogeage yi nga xam ne rek mi ngi law ci biir coalition benn Bokk Yaakaar yéenekaay bi ne gis nga limogeage yi boo moytuwul nag mooy doon rek mooy daaneel nguurug président Macky sàll ginnaaw Mame booy Diao sàmba Ndiaye ak Ibrahima Mbodj niki démb keneen ka bokk rek ca rang ba mu di Moustapha Diagne nekkoon directeur bu formation et communication ca ministère de l'éducation ginnaaw conseil des ministre bi ñu doon amal niki démb moom Moustapha Diagne yéenekaay bi dëggal na la nga xam ne rek moo tax. ñu la nga xam ne moo sabab euh, ñu daal di koy euh, dàq moom Moustapha Diagne bu ñu sukkandikoo ci journal bi ak yenn euh, source yi nga xam ne journal bi fësal na ko mooy rek moom Moustapha Diagne dafay manifester li nga xam ne rek moo di ab soutien jëmale ko ci kii di Boun Abdallah Dionne yéenekaay bi def ab taxaw seetlu te naan gis nga limogeage yi nag la mu nar a jural candidat wu Benno Bokk Yaakaar bii di Amadou Ba du jàmm tey te du jàmm ëllëg ki nga xam ne rek jàmm dalu ko moo di mam booy Diao mi nga xam ne dafa daal di ñàkk ab allié ba nga xam ne rek moo gënoon a rëy ci allié yi mu amoon mu di maire mbay seen ma nga xam ne daal dina jël ab décision daal di ànd ak kii di Abdou Karim sàll ngir jàppale candidat bu Benno Bokk Yaakaar di Amadou Ba ca xët wa mujj l'évidence daal dina fësal opération Euh, d'ince d'incinération euh, la daal di fësal euh, ca diwaanu Kaolack ñi di waa douane daal di amal li ñuy wax destruction pour par incinération ay produits prohibés maanaam produits yoo xam ne rek dañu ko daal di interdire ci réewum Sénégal valeur ba nag ma nga toll ci ñetti milliards ak juróom benn téeméeri million yoo xam ne ñii diwaa waa dañ koo jàpp jël yooye booba produit daal di ko taal ba mu jeex tàkk Walf Quotidien la ñuy daal di ubbi ah, ci jamono ji nag ah, foo laal ah, ci biir réewum Sénégal ma ngay daal di metti loolu ndax hausse des prix ya ñu ca nemmeeku maanaam yokkum njëg yi cher yi yéenekaay bi bi naan pouvoir bi moom ba pouvoir le pouvoir euh, dos au mur te lu ni mel nag mën na indil ay Amadou Ba mi ay jafe-jafe ci élection mu présidentielle yi nga xam ne rek moom la ñuy dëgmal euh, Direct News nouveau ministre de l'économie du plan et de la coopération di Doudou nekkoon tamit ex-ministre des transports aériens la daal di fësal ci biir yéenekaay bi ma ngay àddu moom euh, Doudou di xam ne ni président Macky Sall moo rek dal di tax moo ko may bi nga xam ne mu mën a nekk ci service su population bi di feddali kóllëre moom du Doudou Ka uh, ci digganteem ak kii di président uh, Macky sàll vox populaire la ñuy dal di jël la mu fësal moo di juge uh, Sabassi fay mi nga xam ne ni ki démb dal dina génne ab notification notification bi ñëpp doon xaar booba notification nag moom mooy tax rek Ousmane Sonko mën a dal di jot ci ay fiche de parrainage am yéenekaay bi ne loolu mooy acte 2 bi nga xam ne euh, juge Sabassy Faye euh, dal dina ko posé ki démb yemul foofu daal dina bind itam ab bataaxal préfet bu Ziguinchor yëgal ko décision bi nga xam ne rek jël na ko ca turbinal bu Ziguinchor la des ca mbiri Ousmane Sonko ndax dina bokk am déet li ñuy ni moo di pouvoir en cassation bi nga xam ne avocat yi euh, fare ci nguur gi daal dinañ ko dugal euh, bu loolu génnee rek mbir ya dina leer naññ enquete yéene kaay dellusi ca jafe-jafe yi nga xam ne rek Ah, moom la xalifa Babacar Sall nekkee waa Yewwi Askan Wi ah, ca jamono ji nga xam ne waa PUR moom samp nañu seenub kandidaa waaye loolu terewul xalifa Sall ma ngay wëyal ay parrainage am tey am yaakaar ci ñi nga xam ne rek mënuñu am ay parrainage bu suñu fa jugee rek ñu daal di ñëw ànd ak moom ngir soutenir ko ñu daal di ndar keppee xibaar yi ak tàggat yaram. le point actu la question le quotidien des sports bi nag ca combat euh, sit ak Lac de Guiers 2 la daal di euh, dellusiwaat ginnaaw jàkkaarloo bi ñu doon amal ku nekk ci ñaari mbëri yaa ngay tëkku sa moroom bu dee ni Lac de Guiers la muy xamle moo di ne Euh, dina attaqué kii di euh, Siteu corriger ko ba pare door koy daan waaye Siteu mayu ko euh, dara ca biir waxtaan wax ndax ma ngi koy xamal ne ko man daal xamal naa ne ne man doomu kii di jàmm gën laa du ma dellu ginnaaw benn yoon ci bile combat te loo ci góobe rek lu ma ci góobe dinaa ko gar ay ca mbokk yi loolu moo gënoon fës ci yéenekaay yi jëre ngeen jëf tey lañ àndaloon sur la revue des titres am na solo bu baax a baax on va démarrer ak euh, actualité bi ci suñu ponk bu njëkk limogeage des dissidents de Benno ban analyse Ibrahima Faye moom ngay def euh, sur les limogeages au au sein de Benno Bokk Yaakaar biir Benno dàqaate bi man jàngat nga si am. Kourouzita <laughs> euh, di la jaajëfalaat vraiment di am mbégte di jàkkaarloog internet yi nga xam ne ñooy topp Evidence TV. limogeage yi nga xam ne moo nekk biir bennoo euh, je pense que euh, des dissidents nga wax des dissidents maanaam ñi nga xam ne ñu ngi biir Benno ba pare bëgg nañ ber seen yoonu bopp dem ci beneenu parti wala jël nañ seen bët teg ko ci beneen parti ngir euh, wëyal seen seen seen seen combat ci langum politique je pense que limogeage yi selon moi nekk na loo xam ne lu ñu mën a approuver la ndax euh, boo nekkee ci kër euh, ba kër gi neexatu la wala boroom kër gi neexatu la je pense que mieux vaut nga jël sa ay bagage nga dem seeti foo xamante ne peut-être mën nga fa gis sa bopp mais mënoo nekk ci kër gi boroom kër gi neexu la te boroom kër gi yor la euh, ba pare ngay doxe noo xam ne neexu ko je pense que bu dee yaa ngi dox ci dëgg sax te ngay doxee neexu ko du mën a bokk yow kër gi donc noonu laay commencé analyse bi ci limogeage yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku parce que buñ commencé ci Mame Boye Diao commencé ci keneen ak keneen Mame Boye Diao jour bi mu déclaré euh, candidature am euh, ci jour boobu lañ ko limogé si lendemain bi lañ ko limogé non non si si si jour bi même. Mm-hmm. bi mu ko déclaré lañ ko limogé. Mm-hmm. ce qui veut dire que ne moom jël na décision ne. décision bi président Macky Sall jël pour def Amadou Ba candidat wu Benno Bokk Yaakaar donte ñoom ñëpp ay apériste lañ ñoom décision boobu ànduñu ci te boo nekkee ak borom kër muy jël décision àndoo ci décision bi matatu la borom kër mm-hmm. donc ci ci ci contexte boobu lañ limogé Mame Boye Diao limogé ci euh, keneen ak keneen ba ci euh, euh, ministre bi yore woon les grands trains du Sénégal Samba Ndiaye le nom est venu moom aussi jour bi mu déclaré candidature am ci lañ ko limogé ñu gis tamit démb euh, kii di Moustapha Diagne Mohamed Moustapha Diagne dafa def benn analyse jëmale ko ci euh, ci ci déficit d'enseignement bi d'enseignants yi ci ci réewum Sénégal parce que nemmeeku nañ ay gox yu bëri yoo xam ne actuellement am nañ problème mu enseignant écoles yi ay plus de six cent yi cinq cent et quelques enseignants amuñu ay ay ci école amuñu ay enseignants. Mm-hmm. ci ci biir école yi. manque ay jàngalekat léegi. Euh, ñi nga xam ne te dëkk mënul dem sans éducation. Mm-hmm. d' abord pour nga pour dëkk mën a avancer d' abord pour je me nii éducation bi mooy base bi. Mm-hmm. bu fekkee éducation bi normal na éducation bi dox na pays bu mu mën di doon bu fekkee yeneen secteurs yi ñu ngi ciy góorgóorlu mën nañ avancer parce que ay njiit ñooy ñooy ñooy avancer loo réew ay ay ay responsable ay intellectuel te dëkk boo amul intellectuel du avancer mm-hmm. moom tam def na analyse ci ci déficit boobu joxe ci xalaatam. jàpp ne peut-être am nañ problème état waxee ci contexte boo xam ne ñoom niñ ko gisee mooy que ne euh, daawul waxee noonu mu ngi fustiger di jëmale ci état te mu ngi ci biir état bi léegi léegi loolu système de menace la selon eux noonu lañ ko jàppee peut-être président Macky Sall loolu la gis système de menace la wala euh, mi ngi leen di won boppam te ci ay sources ñu ngi wax que ne euh, day day apporter soutien Boun Abdallah Dionne bi nekkoon Benno Bokk Yaakaar génn daal di ber yoonu boppam léegi Moustapha Diagne des biir Benno Bokk Yaakaar di apporter soutien Boun Abdallah Dionne je me dis que ne kooku génne na boppam si si si coalition bi euh, kon war na mën a ber yoonu boppam léegi nag la ko fa xaar moom moo ko teg boppam muy limogeage bu fekkee nit ki li muy li muy def àndooti vous n'êtes pas en phase avec li muy ci li mu nekk je pense que ne mieux nga jël sa ay bagages nga demal sa bopp mm. parce que loolu moo lay permettre euh, duñ la ne génnal kër gi. balaa ñu lay dàq nag yow war nga mën a génne sa bopp bu mm-hmm. fekkee ci li nga nekk euh, je pense que ne loolu noonu moo waral limogeage yi ku ci nekk rek bi la président Macky Sall di limoger euh, def nga acte boo xam ne ni mën na justifier que ne lii moo waral mu limoger la jékkiwul jékki rek un bon jour génnee benn nit parce que daa am envie génne ko acte yi muy def parce que politique Sénégal c'est comme ça mm-hmm. bu bu yaboo ñu bañ a fàtte benn yoon que ne politique wu Sénégal intérêt la ku nekk say intérêt ngay défendre mm-hmm. de Benno Bokk Yaakaar seen i intérêt la ñuy défendre keneen ak keneen seen i intérêt la ñuy défendre Mame Boye Diao intérêt am lay défendre parce que gisul que ne Amadou Ba war na mën a nekk candidat Benno Bokk Yaakaar mu bari yoonu boppam. keneen ak keneen loolu la jàpp mais ñoom li ñu jàpp président Macky Sall li ñu jàpp mooy que ne leader yi nekk Benno Bokk Yaakaar moom Amadou Ba moo ko ci doy. bi ñu defee test yi ak. Euh, yi nga xam ne def nañ ko dal di accueillir ñi war a mën a nekk candidat ci ci ci biir coalition bi dal di leen entendre bi ñu ci jógee seen choix Amadou Ba porté léegi ñi mu neexul nag dañuy génn dem ñi génn dem ak ñi des ci biir parti bi te neexu leen bu ñu manifesté woo loo xam ne day wone que ne ànduñu ci soit amadu Ba bi dañ leen di génne parti bi dañu leen di génne coalition bi léegi nag ci context boobu moo waral chaque semaine bu ñu ko génnee dugg si beneen semaine ñu ne président Macky Sall limogé na telle personne limogé na tel dirigeant remplacé na ko ak tel personne. parce que moom aussi mi ngi garder ay ay ay arrière am ci élection lañ jëm di d'ici 4 mois bu ñu fàtte benn yoon élection yooyu ñu nekk en phase ñoom moom lañ pare pour gagner ko te mënuñu ko gagner sans une équipe boo xam ne dañuy am consensus ci seen biir. je pense que loolu moo waral limogeage yi limogeage bu ci nekk rek am na justification. loolu laa ko jàppee wante yooyu les limogeage limogeage ba xam arrangé na le président Macky Sall. arrangé wul Amadou Ba sax wax. Mm. parce que actuellement moom moo nekk candidat wu Benno Bokk Yaakaar président Macky il va di si quatre mois day génn te mënatul nekk candidat nekkatul candidat renoncé na donc Amadou Ba la arrangé wul parce que ku génn da ngay am ñoo yóbbaale. bu fekkoon ñoom ñi fi euh, Benno Bokk Yaakaar bu fekkoon tasul mën na am certitude ne élection yi ñu jëm mën na ko gagné. xawma ci ban ci ban contexte la koy gagné mais mën na ko gagné mais ay dauphin ñoo ñoo sekk coalition bi ay dauphin yoo xam ne yenn ñi ñu ngi rocceeku di demal seen bopp te ku ci dem am na ñoo xam ne ñoo nekk sa ginnaaw am na ñoo yóbbaale ak ñi nga xam ne nii peut-être soo génnee ci sa ay discours wala yow ci sa fill de conducteur ci nga leen di convaincre je pense que ne loolu aussi du arranger Amadou Ba parce que soxla woon na Mame Boye Diao si ginnaawam soxla woon na Samba Ndiaye peut-être si ginnaawam soxla woon na euh, Moustapha Diagne ci ginnaawam pour que ñu mën ko tamit ëpp jàppale comme ñeneen ñi niñ koy niñ koy soutenir loolu da doon nekk combat bu yomb ci moom ci élection yi nga xam ne moom la jàkkaarlool mais limogeage kii génn tey kii génn suba loolu tamit day wàññi ay ay day wàññi doole Amadou Ba ci Amadou Ba lay méttee. am na solo am na solo euh, ñoo prési ñu seetlu ni Macky Sall mi ngi dàq dàq gu gu amul fu mu yem ban jàngat nga si am. waaw jërëjëf euh, Kourouzita Euh, merci beaucoup yaa Ibrahima déglu naa li nga si wax euh, mu nekk nag dàq la boo xamee nii man en tant que ñan prési nekkul lu naturel waaw nekkul lu naturel euh, fi ma ko teg mooy que dafa am loo xamee nii ñun dañ ko jàng si histoire voilà dafa mel ni rek brousse bu ñu waxee brousse ñëpp xam nañ ne àll la. ah. jungle jungle. jungle. Mhm. ça veut ci français nga wax rek brousse. ci si si brousse si lan la ban làkk la. brousse français la waaye euh. jungle la gën a jaxasoo. moo ëpp mala yu garaaw. ok waaw man nag maa ngi jëm kon si brousse. Mhm. parce que euh, fi may jëm mooy objectif bi mooy que benn gaynde la. Mhm. bu góor bu ànd ak njabootam. ànd ak jabaram walla ay jabaram ak ay doomam. di rëbb loolu la donc. kenn ku si nekk dafay am fooy jaar ruq booy jaar ak coin booy jaar ak yoon booy jaar pour boo jàppee nga mën a indi ñu bokk noonu lay demee parce que gaynde day bokk waaw lii moo tax ma ne leen man am personne ay limogeage ak ay dàqayeeg ay génnal si parti beeg génnal si ànd bi man naturelul si man nekk lu naturel voilà euh, dafa am benn contexte bu ñu toll muy ko dañoo jëm ci élection présidentielle te ñëpp xam nañu élection présidentielle nekkul législatif mhm. nekkul électo euh, nekkul nekkul nekkul euh, local mhm. donc dafa am foo xamee nii tey dañoo soxla ñëpp comme dañu soxla ñëpp te président bi nga xamee nii moom moo fi nekk nee na moom mënatul bokk mhm. kon jël na tànn na si njabootam kenn koo xamee ni mooy homme de confiance am ne ko jiiteel pour que yow après nga doon président waaw léegi si biir njaboot gi du question ñii dañuy bañ ñii dañuy nangu ñoom ñëpp a nangu stratégie la rek parce que sénégalais ñoom xam nañu les réalités yi am fii mooy que soo tegee nit lu metti Euh, sénégalais yi nga xam ne sama classe gi dañuy daw dem soutenir ko jàppale ko lu tax ñu lu tax lu tax ñu dàq ko waaw ba mu nekkee si parti bi def na fi lii def na fi lii loolu la ñu loolu la ñu faje woon mer ba jël président Macky Sall teg ko si bopp réew mi parce que ni ko Ablaye Wade dàqee woon kon moom tamit aussi noonu lay dàqee euh, euh, d'une manière d'une manière boo xamee ne ni tey moom loolu système de politique la bu euh, Ablaye Wade dafa jàngal Macky Sall wan ko nan la ak naka la mais Macky Sall moo dàq politique Ablaye Wade si jamono bi ñu toll nii. gars yi dañu leen wax ne leen dem leen ngeen bi ñan la ñuy rëbb ñun la ñuy rëbb ñun ñi nga xamee ni tey duñu politicien xamuñu luy politique ñun daal euh, dañuy xool tele bi wala dañuy déglu information euh, ki ñu am yaakaar ne buñ ko falee mu mu suqali réew mi kooku rek la ñuy dem fal ñooñu la ñuy dem nag dox seen maayin. dugg si seen xel dugg si seen xol war na leen waaw man fi mu toll nii walla Macky amul lu ma ko defalul fa nekkoon walla léegi nag damaa be dàq nañ ma damaa bëgg nga ñëw jàppale ma sénégalais loolu la xam dañoo dem rëbb yi mais après bu ñu demee ku nekk boo amee la ngay am si rëbb bi da nga koy indiwaat si biir kër Macky Sall du génn biir kër gi dàq yi nii. ay da jàpp ni dajaloo mën na amaat. non dajaloo day tasaaroo wuñu bay bay bay dajaloo di amaat sax. dañoo tasaaroo stratégie la rek parce que ñun sénégalais noonu sunu suñu suñu politique suñu politique politiciens yi noonu la ñuy doxee si suñuy mind stratégie la mais bennoo euh, ak njaboot gi kenn tasaaruwul kenn ku ne dafa ab yoon parce que li fi nekk opposition bi fi nekk dafa am doole dafa am doole ki fi nekk dafa am doole ne neexul la jàmbaarloo même bu fekkee ne moom demul sax euh, élection bu bu jëloon benn bale taxaw sax na ko na ko moom la ñuy voteel sax ñëpp dañuy dem si bale taxaw kon nag il faut que euh, nguur gi fi nekk def stratégie pour mun a jël ay ay ay ay alliéem ak ay njabootam mu tas leen wane na leen dañu leen dàq ñii am na ñoo xam ne dañu leen di dañu leen dàq nañ leen. voilà euh, loolu dañ koy médiatiser lu fës la mais intérieurement nekkul loo xam ne ni lu légal la. waaye ñu bëri dañoo yaakaar ni le président Macky lu wóolootul ñu ko wër moo tax yi bari. Macky Sall kenn la wóoluwul. mooy ki nga xamee nii tey bi élection yi jubee moom dafa teel a déclaré wu xam nga kan la wóoluwul maître Moussa Diop ak keneen ku mel ni moom waaw ñii moom à tout moment mënuñoo ànd ak Macky Sall parce que dañoo teel a wane seen bopp au début moo tax ñu teel leen a limogé dàq leen gis nga genre boobu euh, Macky Sall mënatul liggéey ak ñoom du si du si jamono yi léegi nag ñi nga xam dañoo dem ba élection yi def ay 4 mois ñu bëgg a dox suñu maay ni ah euh, ñu créer benn benn benn affaire rek xam nga benn tic tac voilà ne limogé dàq nañ leen dàq leen non du dàq da ngay dem campagne danaan la dawal nga dem campagne yi ñu fésal nag si média bi waaw dàq nañ diw dàq nañ diw dàq nañ stratégie la ñaari ñaari type de personne ñoo nekk ànd ak Macky Sall kii kenn xamu ko woon politi politi politicien la mu bëgg a siiw mu dem mu xaar ba benn moment li élection yi des bëriwul ay cinq 6 mois mu dem ut benn mu 10 personnes am wala 20 personnes wala mu topp tele yi di wax di wax di daw ba ba nit ñi ràññee ko mu euh, euh, mu daal di daw dem si Macky sàll ne ko am naa mbooloo Macky xëcc taf si wetam kooku siiw la bëgg kooku dañ dañ ko dafa bëgg ñu ko xam kooku dafa dafa intérêt boppam moo ko tax a jóg kooku amul expérience politique kooku amul expérience sax yor réew. mais xam nañ ne politique bi boo si duggee rek mooy tekki nga milliard milliards yi dalee song nga bëgg nga bañ. privilège yi moo tax nga bëgg nga bañ milliards yi moom day ñëw nice good fine dangay ngay tëdd muy wàcc. Mm. mais ki nga xamee ni aussi tamit moom dafa gëm boppam ne xam ne moom am na expérience su politique xam na réew mi li nga xam ne moo fi sooxee ak li nga xamee nii moo fiy jariñ kooku bañkat la. Mm. kooku dafay dem ba euh, du xaar ba élection des 3 mois wala 4 mois. muy soog a wane boppam déedéet kooku day teel a au début lay wax ne man carrément lii di nguur gi di def ànduma si mu teel a wax boppam li mu li mu ànd mooy lii ak lii ak lii te loolu mu ànd moo jëmale askan bi kanam léegi bu boobaa Macky Sall moom intérêt mooy mu dàq kooku parce que moom gisul ne kenn war na toog si wetam di ko di ko ŋàññi wala nga koy digal lu muy def wala nga naan ko li ngay def baaxul wala lii ngay def nangam sàngam Macky Sall buggul critique ñun fii ñu toog nii si si si si micro yi sax ñun à tout moment mun nañ ñoo jël si waaw pour kaa nga wax lii si Macky pour kaa nga wax lii mais ku bëgg defar sa réew. Mhm. wala nga bëgg a euh, am loo apporter sa réew si wàllu kàddu nga nekk porte de voix. Mhm. waxal lépp loo xam ne nii day jariñ. Mhm. bu lañ si fekk ñu fekk la si lu luñ la siy def ñu def la si mais nit ñi dinañ xamoon na yow li nga doon wax lu jariñ sa réew moo taxoon nga koy wax mais nekkul loo xam ne day yàq mais politiciens yi daal politique politiciens yi. fàtt nañ ñu nappe nañu sonol nañu rey nañ ñu dëggate nañu ñun xamuñu ñun ëllëg kan moo war a yor suñu réew sincèrement. d'accord am na solo ñaaw président am na solo bu baax a baax macha allah ci intervention bi le perturbateur daf ñu dab le perturbateur ñëw na ma jaare fa nuyu bale waaw soxna si Christ maa ngi lay fay bu baax a baax di la jox sa waaye di nuyu ñu ma bokk plateau. di nuyu waa Sénégal gi yëpp monde entier waaw bàyyiwul kenn nag ñi képp kuy suivre Libida TV ñu ngi lay ziar bu baax a baax day jox sa wàccuwaay. <laughs> ba si kanam nga wax ñu li ñu indil. waaw amul problème incha allah <laughs> rabi loolu ragalul loolu. baa <laughs> euh, euh, ngi dem sans plus tarder ñu attaqué sunu ñaareelu ponk PDS sans candidat euh, Karim Wade ko kenn déggu Karim. waaw Karim de xam nga ndeysaan. bàyyi da ko doon wax gëmmal guux euh, gëmmal guux boobu euh, jigu ko parce que cent et quelques milliards bu fekkee ni dañu leen la yow yaa ko luubal euh, je pense bien que ne ba tëj kaso am si ba benn moment ñu génne la réew ma nga xam ne fa nga war a doon président kooku buñ ne la yow di nga doon président deux mille vingt quatre loolu ay naxe mbaay la Karim mënu fee falu fii ak 2024 loolu c'est impossible. sama raison la nag sur quelle base. sur quelle base yi ma ko teg parce que Karim de bu fekkee ne dañ koo jiñ ne dafa luubal cent et quelques milliards mm-hmm. ñu tëj ko si kaso mm-hmm. ñaari point ngi noonu ba beneen moment ñu génne ko réew ma bi mu bëgg a doon président ñetti point ngi noonu ñeenteelu point bi ñu ma déggaat ñu ne Karim ma ñu luubaloon ne moom moo sàcc. sàccatum waa léegi kon xaalis boobu ñu ko jiñoon man sama question la xaalis boobu ñu ko jiñoon léegi anamu dañ koy jiñ keneen wala dañ ma koy tegal si plateau bi ne ma xaalis baa ngi nii fii la mujj nekk kon dafa làqu woon dañ ko yaakoon Karim moo ko jël waaye xaalis bi nekkate mu ngi nii si palaato bi man lii laa soxla question la damaa bëgg xaalis bañ jiñoon kari ne léegi luubalatul sàccatul léegi xaalis boobu laa bëgg man ñu wan ma ko nii vis à ma xam ne xaalis bi kot kon nekkul woon ci Karim kon dañ koo tuumalaan dañ koo tuumaloon mais xaalis baa ngi nii diggante 4 mois Karim mënu fee ñëw def fi campagne am fi président euh, sénégalais yu tamit dofuñu dama damay wax parce que Laye Wade man bokk naa si ko fal. Mm-hmm. Euh, du ma damay wax léegi les réalités li xam ne moo am ak lu nangu. Mm-hmm. Karim mënu mu campagneul xamul Sénégal. waaye xëy booy bi xale yi dañ koo bëgg de. Euh, ñoom na fi Karim rek la ñuy toog. waaw loolu loolu bëgg bëgg bëgg bëgg leneen la mais du bëgg développement. Euh. bëggu amoureuse la wala bëggu taar la wala bëggu euh, boo boo boo la wala affaire yooyu. donc ñaan boo boo boo boo gaa boo garçon yooyu ñoom foofu lañ toll ñoom ak développé wuñu rien du tout li ma bëgg ñu xam ko mooy gis nga élection dafa am ay yoon. Mhm. nekkul ne da ngay dem toog bitim réew ba heure bu mu la neexee. nga duggaat ci biir réew mi daal di wax ne leen fal leen ma président Karim c'est impossible ñu euh, samay mbokk waa PDS na ngeen ma comprendre. mais c'est impossible mu nekk fi président deux la mhm. et que dafay ñëw bokk ci élection. mais ki ki ki nar a ki nar a def ki nar nekk candidat élection présidentielle nga bëgguñu ñu fal la. mais doo toog ba 4 mois des nga jóge bitim réew te ak yow li nekkoon sa ginnaaw ñu bootal la ko ne yaa ko def. ba léegi loolu. leer nañ ko ko bañ ko ko kan moo ko askan bi moo ko teggil wala état moo ko. teg ñaka ko tegoon nag kon foofu dafa leerul si bopp askan bi moo tax ma ne la ñaka ko tegoon dañoo war a génne milliards yooyu ñu tegoon Karim. Mhm. ne Karim yóbbuwu ko milliards yaa ngi nii. askan bi ñu ne Sénégal ñu ne Sénégal ñu ne Sénégal seen xaalis a ngi nii. ñun ñoo juumoon Karim yóbbuwu ko xaalis baa ngi nii loolu mooy mën a tax ñu gëm Karim gis nga Karim ak. Idrissa sa ak ak keneen koo xam ne nee nañ la da ngaa luubal xaalis gis nga xaalis boobu tànk leeru leerul sénégalais yi duñ fi fal duñ fi fal ku kuy sàcc. mais mhm. ñaaw président dama bëgg ñu des biir PDS parce que lu toll ni PDS amul numéro 2 bu dëgër numéro 2 bu taxaw loolu tam doy na waar. loolu doy waar parce que ña nekkoon di ànd ak góor gi ànduñu woon ak moom àndu nawle ànduñu woon moom lu sincère. seen poos lañ moo tax moo leen taxoon jóg ak seen intérêt bopp booy xool góor gi ba muy soog a falu 2000 Euh, diggante 2000 ak 2003 3 ans la automatiquement ña nga xamee ni tey ñoo sësoon si moom ah du ma tudd yi <laughs> mais ña sësoon si moom ñu ngi doon commencé di tabax ay immeuble ah di di di di di commencé di jël xaalis bi di di sàcc bu baax a baax. di noos waaw di noos di gundaandaat di fel di felaale di def lu leen neex di jënd oto yu rafet. Mm. di tabax ay immeuble dakaar fii. nguuru Ablaye Wade nag dafa neexoon. tarkalla macha allah xaalis du doon circuler normal. góor gi na mën waaw moo tax moo tax nag gis nga ngeen tey man bugguma kenn toog. naan naan dëkk bi dafa naqari. xam nga boo toogee ne nguuru Ablaye Wade dafa neexoon tey waroo toog tey ci nguuru Macky Sall nga ne dafa naqari parce euh, lépp loo gis dafa am un am deux. Mm-hmm. escalier si benn ngay commencé. li fi Laay Wàdd bàyyi moo continuer ba léegi kon waroo toog ne nguuru Laay Wàdd dafa neexoon tey nga toog ne nguuru Macky Sall dafa naqari no mënuma d'accord si loolu parce que état continuité la parce que li fi Laay Wàdd bàyyi ba léegi moo fi sax ñuy màcc muy meññ ngay ngay sex di wolom li ko kon donc y moment des moments yoo xamee ni euh, da liggéey dafa am euh, lay Wàdd li defar na ñun d'accord nañ mais li mu yàq moo ëpp li mu defar. Sénégal de mosul méttee nii moom ni mu méttee nii. Ah, ci at yii mosul méttee nii maanaam góom bi moom ñëpp a ko ñëpp ko am. Mm-hmm. ñëpp a ngi yëg métit bi ci côté yëpp nag. man de du ma d'accord jamais jamais au plus grand jamais ngeen ne nguuru Laay Wade dafa neexoon nguuru Macky Sall dafa naqari loolu mënuma ko d'accord parce que ki fi nekk président tey tey tey Laay Wade moo ko formé moo ko jàngal moo ko wan nan la ñuy politiquer. yow ñu àndoon ak ñoom xam nga dafa ay jaan faja jaan fa fada ay ay ay ay ay farba farba farba farba Senghor. élément élément mag euh, Ablaye Wade la woon. ay ay farba Senghor léegi def na partie boppam muy euh, euh, association dégg nga LDR Yeesal. Mhm. LDR Yeesal. Mhm. donc moom aussi tey jël nañ ko nommé nañ ko ministre des coopératives. Mhm. li ñaa doon wax la rek sotti seeg def si la xam nga moo tax ma ne la bu leen wax ne réew euh, nguur bële dafa naq neexoon nguur bii dafa naqari mais lan mooy différence bi yow Diagne Fada Diagne Fada ak euh, euh, Farba Farba Senghor Farba Ngom xaw ma ñoom fii la ñu Abdoulaye Wade fii la falu même pas trois ans nga gis leen fii immeuble bu fi gën a rafet ñoom ñoo ko moom si même pas même pas trois ans mm-hmm. mais attends gis nga bu ñu naxante quoi Laye Wade soo buggoon moom moo fi def ñëpp milliardaire ba si ba si Macky Sall mii li taxoon Laye Wade bëggoon ko tëj ah ñoom ñëpp moo leen def milliardaire waa yow ki nga xamee ni mbër yeeg fecckat yeeg caaxaankat yi bu ñu duggee pale bu ñuy génn ay maletu xaalis la ñuy génne mais yow ba pare nga ne kooku nguuram dafa neexoon. yo attends ah, dafa am loo xam ne nii dafa mel ni histoire euh, da nga koy fàtte fii fàtte xaju fi diggante deux mille ak deux mille 2023 fàtte xaju fi. mais ñoom élection sans PDS dina dina ñàkk xorom lool. Ah, waaw yow élection sans élection sans PS mun bu fi amee élection sans PDS mun na fi nekk c'est c'est possible parce que réew day changer. Mhm. jikko yi dañuy changer xel yi dañuy changer xam-xam yi dañuy changer. Mhm. dañuy évoluer instant bi nii mag ñi falatuñu kenn. dama bëgg ñu xam ne gone yi jeunesse bi ñoo yor réew ku fi falu ñoo la fal mag yëpp dee nañ jeunesse bee fi des li ñu bëgg ngay def li ñu bëgg soo ko deful ñu jëlee la fa teg ci keneen. Mm. jeex na amul lu spécial. wala taxaw xam nga Karim Wade. Karim Wade naa ko kay. Mm. ah Karim Wade kay xam naa taaxee sa booy. ah Karim Wade moo nekk Qatar. <laughs> waaw ah xam naa ko moo xees nii rek. waaw <laughs> doomu Ablaye Wade jooju kay xam naa ko baax a baax. réew mi nañ ko lool lool. waa Karim ah, ah ah ñu koy namm rek de man de wax de yàlla namm ma ko waaw ah, am naa si droit di na mu ma ko. Mhm. waaw ndax euh, dëgg moom dafa neexut dëgg moom kaani la kooku tuuf rek mu toxoñu. Mhm. waaw euh, mënuñoo wax Karim Wade dañ koo tëj dafa sàcc nangami milliard mhm. ñu jekk-jekk ñu bàyyi ko mu dem ñibbi génn ko dëkk bi. ñu toogaat ay moyens. ñu ne léegi nangoo naa fay. pour mu bokkaat kon kon moo jëloon ku nangoo fay rek yaa jël mi ngi mel ne ay kaa Khalifa Sall rek këpp kees la def moom dafa këpp kees. ko bëgg a bokk ci élection mu ne nangu naa fay kon kay moom moo këppoon kon kooku boo ko joxee réew mi kon mu këppaat keesu réew mi rek. ñaaw loo xalaat si li ma <laughs> fii moom boo boo boo boo fi boo fi ne diw dafa sàcc ah, ba ba kas tëj kaso am si. Mhm. Ah, wax dëgg yàlla laa wax ni bu fa dara leerul buñ ko fi falaatee tamit bu sàccee bu mu bett kenn. bu mu kenn kese sàcc moom sàcc la rek. waaw koo xamee nii tey wax dëgg yàlla loxoom set na ah, wax dëgg yàlla neex naa bokk ak naal ay mag euh, ndab. waaye fal fi koo xam ne ni wax dëgg yàlla xaalisu réew mi rek moo ko ñor ak intérêt boppam ak njabootam ak ña muy àndal vraiment euh, loolu jeex na Sénégal. yaakaar naa loolu amatu fi. xam nga maam ñaar problème mooy lan gis nga Sénégal am na yoo xamante ni yu bari dañ ko ci war a mën a génne di ko ci wax. comprendre mënuñu jàpp xaalis Sénégal bi di ko pasa pasaree. Mhm. ah di leen def lu leen neex di tabax ay kër di yóbbu seen doom di leen rawale di def nangam ñu bàyyi fa ñun ñii. comme luy na comme lu leen na fi wax nii wala kii li mu la loolu moo nekk jamonoy Abdoulaye Wade nguur gi dafa neexoon. mais yow sànq loo woowee kii nu mu tudd. yaa may dégg déglu ma rek ba ma ba ma ñëw ma foofu bu ma jëma dagg xam nga sànq da nga ñëw da nga ñëw naan ay nguur gu Abdoulaye Wade ak nguur gu nekk bokk bokkut bokkut nguuru Abdoulaye moo gënoon neex fuuf mm-hmm. xam nga maanaam nit nekk booy ñëw ak sa wërsëg nooy ñëwee mm-hmm. Abdoulaye Wade ba muy ñëw da wërsëgam dafa fekk Sénégal mu tombé Sénégal mu neex lool mm-hmm. da ngay dox sa di for xaalis waaye jamono ji léegi pour nga dox for xaalis sa problème la ah, kenn faratul de moom kenn daa for mais yow yow <laughs> su ma la déggee ndeysaan bale tey dafa mel ni bale sa nga parce que dama dégg say waxtaan Eh, nga ne nam moo Karim. nam moo ko doon waaw ba si yàgg eh, nga waat fa daal di eh, nam mu bàyyi ja. Mm-hmm. bay bay wax ay xeetu baax baaxam. Mm-hmm. ah man de dama yàgg bu ma dama mu bàyyi ja de. dama ne ba dama ne bàyyi ja laa wax bàyyi ba fi toogee. réew mi neexoon na ma bàyyi ji de. ah ok mais na. lool. waaw mais daal Karim moom bokkul say mbir. Mm-hmm. mais bàyyi ji moom mun nga koo tagg quoi si si jaar jaaram. waaw def na fa de def na fa de. Ah, ok fii de moom ku fi def lu baax ñu wax. waaw léegi yow en tant que artiste. wala ñun en tant que euh, ay artistes. waaw voilà ñun euh, ñun lan mooy suñu wàll ci teg ay scénario yoo xamee nii tey euh, dañ koy jëmale li nga xamee ni mooy doxaleenu réew mi si lu ñuy jëmale kanam par rapport ak politiciens yi man man man man ba léegi loolu dafa ma jaaxal quoi pour artistes yi ay porteurs de voix lañ. Mm-hmm. lan moo tax ñoom du ñu teg ay scénario yoo xamee nii par rapport ak politiciens yi ni ñu yoree réew mi mm-hmm. ñu siy wax. di si joué dañ leen si tere wax non du question tere wax de. duñ si wax duñ si non du question tere wax xam nga xam nga maanaam xam nga maanaam da nga laal fa fu am solo. Mm-hmm. si wàllum ah, ah, art bi mm-hmm. art bu ñu nekk muy wàllum euh, théâtre bu ñu nekk. Mm-hmm. gis nga théâtre Sénégal dañ koo joxul lu mu moom. artistes yi joxuñu leen lu ñu moom. boo demoon yeneen réew yi yeneen pays ay ay Côte d'Ivoire ak nangam dañuy génne benn budget boo xam ne dañ koy jox ñoom ñu tourné. Mm-hmm. luñ soxla sax mën nañ leen ko jox. Mm-hmm. mais fii dañoo ñàkkal fayda théâtre. dugg nga ci domaine ñaan ak. dañ koo ñàkkal fayda. Mm-hmm. fi mu budget bu génnoon tey jii budget bu génnoon wàllu culture yi ngay dégg ak nangam Sénégal amul budget euh, théâtre amul budget. théâtre amul budget pourquoi ay danse ak yëpp day am budget. ay yeneen yeneen day am budget culture. mais théâtre bokku ci sax mais ñi ci war a mais théâtre bokku ci nag kenn kenn kenn nekk euh, nu ko tubaab boole ko seen i mbir. boole ci dara caat. mais nga baal ma léegi moyen de communication bu am solo. comprendre nga tey jii bu fekkoon tey jii état daa génn benn budget tey jii jox ko théâtre kat ne joué leen nangam. Mm-hmm. kon théâtre kat dañ koy joué. mais tey jii nga baal ma théâtre kat yi tey jii am na loo xam lu ñuy def seen i moyen lañ koy def ñoom seen i moyen. nga baal ma bale euh, tey état ki nga ki la ki la ki la ki la jox nga lekk. Mm-hmm. yaakaar naa ne euh, kooku am na loo xam ne di nga am complexe pour wax ko si moom. Mm-hmm. non si si Sénégal ni mu baaxoo rek. Mm-hmm. Euh, euh, euh, réewu tubaab yi xamuñu loolu. Mm-hmm. boo leen waree subventionné da nga leen di subventionné. Mm-hmm. jox leen li ñu moom. du tere boo nekkul si dëgg dañ lay wax nekkul si dëgg. mais man fii ni ma gisee. mooy bu la état joxee xaalis. ne la joxal say mbokk say artistes. Ah, ma ja maa leen jàppale si lii. yàlla xam ne ne scénario bi ngay njëkk a teg. mooy tagg ay maamam. man loolu laa fi gis. moyen pour tëj seen gémmiñ la au fait. seen gémmiñ la te ay alors que loolu c' est obligatoire loolu c' est forcé. Mm. man ma joxee xaalis sama dagg la say maam man mii toog. Ah, waaw léegi moo fi nekk di. <laughs> waaw léegi nag kon est ce que kon est kon ñun artistes yi. kon est ce que ñun warati nañ laaj situation ba pare non seulement est ce que warati nañ toog naan réew dafa naqari kon artistes waratul wax ne réew mi dafa naqari parce que. booy toog di wax ne réew mi dafa naqari te yow et fa ngay waxee ne réew mi dafa naqari bu ñu la joxee xaalis tëj nañ sa gémmiñ mais amatul sens kon il fa que ñu xool ñun tamit suñu toogaay ak suñu doxalin ban sens la ñu war a jël ñun xamatuñu ñun ñooy kan am na solo loolu dinañ si dellu si suñu ba ci politicien ba ci politicien yi sax ku ci tëj côté ni bu ñu la génnee da naan mm-hmm. <laughs> dinañ si dellu si si suñu yeneen euh, émission mm-hmm. euh, ñu daal di jàll si rubrique bi ñëw Nafi Ba di indil tous les jours rubrique euh, bët set tey ban thème nga indi Nafi Ba dafa indi divorce tas yu bari yi. waaw comme ni nga ko waxee tey ci seen rubrique li ci biir kër yi. Mm-hmm. tey divorce lañu fas yéene waxtaanee. mu nekk phénomène boo xamante ne daanaka dafa bari ci dëkk bi mm. dafa bari te dafa yàgg waaye nag bu ñu nee divorce ku ne xam na ni mooy sëy bu tas mm-hmm. bu ñu nee sëy ni góor ak jigéen mm-hmm. alors ñu gis ne yoon dafa ni am na divorce à à voie contentieuse ak divorce à voie amiable mm-hmm. alors lan moo waral divorce yi ci loolu la ñuy ñëw d'abord li koy waral dañuy tàmbali ci ponk bu ñuy wax mensonge mm-hmm. maanaam fen mm-hmm. di fen sa jabar wala ngay fen sa jëkkër mm-hmm. te loolu tas na sëy yu baree baree bare ndax nga fekk nit gëmloo ko ni man dama yor par exemple gëmloo ko alal di ko wan alal alors que yow mi amoon lu sukkar kafe mu dugg ci biir lu gis loolu nga dugg ci biir fekk dara dara munu laa yor munu sa yor boppam ba di la yor munu sax jëndal sa bopp jëndal boppam caleçon ba di la jëndal silib mm-hmm. mais loolu dafa doy waar mm-hmm. mais loolu dafa métti mm-hmm. tas yaakaar la nit ki nga jële ko kër papam ak yaayam ay waajuram sonn ci moom yar ko fa ñu ko yaree di def ci moom xamul lu dul euh, papa yaay ñu koy jëndal di ko toppatoo ba mu màgg nga fekk ko kër ndeyam ak baay foqati ko fa yóbbu ko sa kër ba noppi te doo ko yor yor bi war te dëkkal dundal woddu lañu wax donc ma nee nañ nee nañ bët du yenn waaye xam na lu bopp attan balaa ngay jëlee jigéen kër ba kër war na la leer ni mënal nga ko tamit dëgg laal ko uh-huh. am na solo per ñaa <laughs> tey mu neex wala <laughs> mu naqari rek na dara non wala mu naqari uh-huh. parce que ñaari ñaari ñaari voix moo am mm-hmm. ndax neex rek ndax nee na cause de divorce yu bari mensonge moo koy waral day neex rek wala mm-hmm. mu naqari mm-hmm. mais euh, dafa am mot français bu mu utiliser léegi mu ne divorce des fois day am si l'amiable mm-hmm. wala waxoo loolu ah, ah, wala ci contentieux mm-hmm. ok euh, ça dire contentieux ça dire maanaam bi nga xamante ni juge bi ci boppam mm-hmm. moo koy dogal moo koy jël dogal tas ko l'amiable mooy mbokk yi ñëw toog ñëpp yéen ñaar yow yéen ñi ko sekk ah. yéen ay waxtaan ba d'accord mhm. après nag bu ngeen demee juge bi àtte ok euh, <laughs> loolu bëriwul de waxtaan sa jabar bu juboo si benn kàddu ngeen war a te séparé woo ah, naa am ah, de loolu moom du ko laal ko gis de non loolu du ma ko laal da wax jëm kaw jëm suuf ma ne la nga ne dinaa la tontu <laughs> la ilaha illallah eh, xaw ma kañ laa lay tontu mënuma la année bi mais euh, divorce li koy waral ak li koy indi des fois tudd nga ci benn point nga ne fen da koy indi dem nga sax ba ne nit ki euh, dina dem ba benn moment du la mën a jëndal caleçon ba du la mën a sax jëndal slip ok mais yooyu yëpp c'est bien c'est beau si ni ko argumenté mais am na lu gën a am solo si diggante way dencante est-ce que xam nga ne lu feeñ ci sëy nuyoo woon na si ngoro ba dañ ko faalewul waaye nit dafa lëndëm nit lu mu bëgg nga xam ci moom rek ngay xam ci moom comme nit dafa lëndëm uh-huh. te nit lu mu bëgg a xam si moom ngay xam si moom mais duggal si sëy bi te yàlla tax boo fa gisee leneen wala nga xam fa leneen di nga fa des parce que yàlla moo la si dugal. dañuy dugg te yàlla a tax mais dëgg tam dafa neex. non boo duggoon te yàlla tax même boo si gisee ay fen sax di fa des ndax yàlla moo la fa dugal. ah ay fen moom neexul muñal ne. non non attends dafa am ñaari aspect da dugg te yàlla tax wala nga dugg. ngir di xool naan kii dafa bon wala dafa baax wala dafa mën a wax dëgg wala dafa mën a fen wala dafa salte wala dafa mën a sañse wala am na xaalis wala amul xaalis ñaar yooyu moo am sëy boo gis laa la wax nii euh, euh, mu mu mu mu mu gudd fan ka jigéen ko dégg na ay feni feni feni feni ba mu mat ko laa la wax nii añ ak reer ak ndékki te te dafa réew muñ ko xaar ko fa bu fekkee ne fen kese fen fen fen nga xamee nii moom ngeen di foowee nii di ko foowee nii comme reeni été mm-hmm. moo lay génn si sëy man de gëm naa ne benn jigéen du toog ci sëy bu dee fen kese benn jigéen du toog si sëy mais jigéen bu dugg si sëy ngir yàlla moo tax di fa toog parce que non dafa am doguma la waaw waaye gis nga sëy bu ay fen takk wóor na yàlla dëgg koy tas waaw xam nga yéen a bëgg ku leen fen wax dëgg yàlla jigéen ñi neexul ba neexul yéen a bëgg ku leen fen parce que bale taxaw mii bu ñëwoon mhm. euh, sol njaxasam bi Euh, taseeg yow si mbedd ne la ma pardon yow Nafi mii xam nga ne bale taxaw bu la tase woon sa intercepté la ne la pardon taxawal boo ko xoolee li ngay njëkk xool mooy abi maam pour nga mën a taxaw ak moom wax ak moom foog nga xool abi maam bu fekkee ne dafa xoju nag sol cravate ne la si ma sœur pardon da ngay taxaw ne euh, bu fekkee ne bale taxaw dafa sol ay caraxam sol li nga xam ne mooy njaxasam. ne la ah ku jigéen ki baal ma waaye soxna si. boo ko xoolee li ngay njëkk a def mooy da nga koy jéppi benn mooy da nga koy ciipatu benn bu bu bu insister nga ne ko eh xool nga ma du ma sa morom mais naan ma ma sama soxna soxna seeg nang mais yéen yéen bëgg ko leen di fen yéen ñun góor ñi dañoo nand loolu dañ koo miin xam ko yéen ñun il faut que ñu dem abbu tubéy abbu oto ab parfum abbu cravate abbu lépp mox ba mu neex d'accord naa ci aspect bi nga waxee. ah am na jigéen yu bari yoo xamante ne ah, nii. li olof li tubaab naan l'apparence. faut valider trompeuse. góor day ñëw gëm loolu loo xamante ni amaana nekkul ci moom mais yow yaay xippi say bët mën a ràññee mm-hmm. lii dëgg ak li nga xamante ne fen la mm-hmm. waaye tey góor bu ñëwee dëggu ci li nga xamante ne nii mooy li muy wax ay kàddoom ak ay ay jëfam kooku yaakaar naa ne loolu dina ko dimbali ci lu bari mm-hmm. ndax boo dee jaaykatu kafe sax boo ñëwee ne ko mankat jaaykatu kafe laa nga wax dëgg mais nga wax dëgg dala ci bëgg te yàlla rek tax te bu mm. duggee dina xam ne début bi waxoon nga ko dëgg mm. mais boo ko gëmloowee loo xamante ne nii amul mm. bu duggee ci sëy bi gis leneen day daal doon betteel yaakaar bu tas la yaakaar bu tas la gis nga jigéen jigéen mm-hmm. euh, mënul mel ni kakatar góor mooy kàkkatar parce que góor moo lay fekk yow ci sa biir kër mu xool sa comportement xool sa casting xool sa melokaan xool sa communication xool li nga xam ne mooy sa caractère mu adapté ak loolu changer couleur automatiquement bu bonoon sax day baax ngir sa mu ngi dépendre si yow sa façon mu fekk si la si sa mënin wala mu fekk si la si li nga bëgg parce que bala maa am lu ma naqari jigéen day toog première jour deuxième jour mu ne la léegi dama lay wax li may bañ <laughs> mais comment góor loolu la yàkkamti nga na nga toog ak moom naan ko damay bañ lii man bugguma ku ma wor man bugguma góor gu salte man bugguma ku may boole keneen mais yow wax nga ko fi muy jaar doo ko mës a gis laa la wax nii si li ngay bañ doo doo si mës a teg bët. Mhm. tànk takku tànk takku la. yow balaa maa dee nga ne ko kaay ma wax la li may bañ parce que man dama am personnalité man koñ bi kenn yabu fii jigéen laa boo xam ne dama am maanaa dama am dignité <laughs> voilà léegi man daf man du ma ànd ak n'importe quel góor léegi man il faut que nga mel nii mel nii ñu soog mën a def. attention góor boo ko def. mu mel ni kàkkatar changer automatiquement selon sa la nga bëgg mu la mu mu mel noonu solon sa na nga bëgg mu waxee mu waxee noonu solon sa na nga bëgg laa la wax nii muy jëfee bu jaral na ko mu dem di sàcc xaalis sax ñëw di la verser am na du ma nekk góor koo xam ne du ma defar. loolu mooy ñàkk gëm sa bopp yow ku góor ki. loolu yéen a bëgg ku leen di fen. parce que yow ah. tey jii boo dajewee boo fëggee benn buntu. ku jigéen ki xool la ci kaw ba ci suuf ne la mooy yoo xam nga sa bopp mhm. mais boo demee ci deuxième bunt bi bala ngay egg troisième bi di nga taseeg jigéen bu la ne sëñ bi bëgg naa la te yàlla rek tax mhm. sëyal la mais dëggu leen donc mi ngi noonu loolu benn pont la bu am solo mhm. waaye itamit entretien bi war ci sa biir kër am na ñoo xamante ne xooluñu xale yi seeni yére seen i dàll naka la ñuy bu ñuy jàngi seeni i bagage lépp jigéen yee koy dox wala pour lan loolu pour lan loolu góor da nga am wareef sa biir kër jabar da nga yor na mu waree mhm. di ko jox mu lekk di ko jox mu naan ba noppi di ko jox mu sañse mhm. c'est important parce que tamit dañoo nekk ak suñu ay nawle mhm. mais am na ñoo xam ne tabaski ba tabaski wala korité ba korité la am yére et c'est grave waxuñu nag ngeen def loo leen mënul mais ngeen góor góorlu <laughs> alors beneen ponk bi tamit. <laughs> def ci kër gi bañ a def bañ a def ci bitti. lu am sàmba alaar gi fii kenn <laughs> mais sàmba alaar gi fii bëri ci réew mi tulleeg mali la. Mm-hmm. Euh. da ngay gis nit bàyyi jabaram génn ci bitti. di maye loo xamante ni nii boo duggee këram da koy da koy da nga koy xeeb. Mm-hmm. da koy xeeb. boo gisee yàlla jabaram sax yërëm ko wallaay. Mm-hmm. yéen a ko bëgg de yéen a bëgg yéen a wax ne góor du leen ko génnal te du leen defal yéen ay wax loolu. du ma génn góor bu ma dul defal. du ma doon sa ñaareel ah. alors mu nekk ponk aussi bu am solo. Ah. waaye itam ñu seetlu problème de famille yi maanaam belle-mère yi njëkk yee goro yi tas nañ dëkk bi eh wax ma ñëpp ah, du ñëpp bon nag. <laughs> waaye la plu plupart mooy loolu ndax nag da ngay yor sa goro mu nekk eh, sa doom nga ne ah fii ngay toog ak lii ngay def ak dee ma toggal dee ma yàqal dee ma paaseel dee ma fóotal dee ma paaseel. di exagérer di exagérer. wala dañuy dem ba di yurnu sax yow sa néegu say naka ngay sëyee e c'est grave non je te dis c'est grave goro yi li ñuy teg seen goro yi dafa metti belle yi li ñuy teg seen goro yi dafa metti nañu yem seen palaasu goro waaye tamit jigéen mënoo ñëw tamit nga ne ah man kat sama sëy bi sama jëkkër kese la toi et moi. goro yi ci lañ. ndax nag goro yi dañuy sonn dem parce que d'après ñoom seen témoignage aussi dañuy sonn ci seen i doom dimbali leen jaay seen or. xam nga jàppale leen ba ñu dem tukki par exemple ñëw ñu ñëw am benn xale bu jigéen boo xam dañoo bëgg foqati nekk ak xale bu góor bi moom kese jël li mu yor yépp aaki moo ko yaay goro yi dañuy bañ loolu mm-hmm. donc boo naree déraper dañ lay tegaat ci ànd mm-hmm. yemale la loolu day indi li tax des fois sa goro fexe ba dégager la indi sa moroom ki ba bëgg toog sëy mhm. mais nañuy bàyyi xale yi di dund seeni mbëggeel di sëy lu am solo waa nañ leen bàyyi ñu sëy daal vraiment c'est important mhm. mais lu man je suis désolé vraiment je suis désolé Euh, parce que man dama xamul ban réew laa nekk quoi man dama xamul ndax man euh, euh, tubaab tubaab laa wala nit ku ñuul la africain la wala mm-hmm. sénégalais la mais ñun li ñu xamoon mooy que sëy ak say say say say sëyal sa yaayu jëkkër sëyal sa jëkkër sëyal sa baayu jëkkër sëyal say frère jëkkër sëyal say sœuru jëkkër ay bàjjanam ay ay tàntam ah, ay mbokkam man ñun loolu lañ xamoon à l'époque. xale yi defatuñ ko de. mais xale yi defuñu ko moo tax xale yi toogatuñu si sëy bi non attends xale yi bi ñu ko xeewilee mhm. moo tax ñoom tamit toogatuñu si sëy yi parce que yàgg sa jëkkër rek mënoo leen lijjanti seen sëy si impossible soo fa bàyyee yaayu jëkkër bàyyi fa ay tantaam ak ay mbokkam nga ne yow sa jëkkër kese la mais baaj bëj ak làmmiñ ñoo dëkk te saa su ne dañuy laalante mhm. boo ngeen laalantee kan moo leen war a àtte dee yow da ngaa jël yow sa jëkkër aaki moo ko dugal ko si mu dugal la si appartement wala mu dugal la si benn studio yéen ñaar dong ngeen fay sëy bu problème amee ku koy lijjanti ma ne sëy ya daan baax dañ daan sëyal goro di sëyal njëkke di sëyal euh, rakku jëkkër di sëyal magu jëkkër bàjjan ak tànt ak kenn du des mais yéen a jël mbir mi moderniser ko sëy yi dangeen ngeen koo moderniser moderniser modernisation boobu moo leen sonal benn sëy euh, euh, dëgëratul sëy yëpp a ngi yànq waaw ba bëñ buy yànq moom wekk sànni rek sëy léegi la goro yi dañuy sëy seen sëy ba pare bëgg sëy seen sëyu doom xanaa loolu laa sëy léegi la sëy léegi la loolu mënta nekk yaa ngi may dégg mais loolu moo amoon à l'époque non kenn bañul di sëy di sa goro di ko toppatoo et tout ñëpp yëpp ñu am na ñoo xamante ne à nga wax indi tey ñu ngi sëy ñu ngi sëy sëyal goro yeeg njëkke yeeg mhm. euh, xar yeeg xaj yi ci kër gi ñëpp di leen toppatoo di seeg waa koñ bi sax te yàlla rek tax te duñ ci dégg jërëjëf duñ ci dégg merci mm-hmm. non dañu lay dem ne seen jëkkër demal nga utaat keneen mm-hmm. poussé leen sax ñu dem doxaan bu ñu indee kooku def ko yàlla bu la ñu wala nga dem takk mbokk jàmbur sax ñu lay poussé pour nga takk sa mbokk waaye waaye bi ci gën a am solo it mooy jalousie mm-hmm. fiiraange tas na kër yow sa jëkkër bu yoree portable am loo ci lu ci sa yoon ay portable am di lijjanti portable di lijjanti mm-hmm. eh, fan nga dem kilifa da nga koy bàyyi mu doxi soxla yenn yi sax da ngay sonal sa bopp doo koo talati sa bopp ah, fiiraange baaxul l'homme est né infidèle mm-hmm. loolu moom lu am la noppalal sa bopp da ngay gis jaw jigéen joo xamante ne lépp lu war ci góor ci jëkkëram mi ngi koy def te teewul jëkkëram da ko fay bàyyi dem di doxaan léegi nag boo fi naree nekk nag yow di wàccee sa bopp di minimiser di jël sa téléphone jëkkër di ko vérifier di envoyer ay message da ngay yablu sa bopp da ngay manqué jigéen bu am valeur du ko def mm-hmm. da ngay toog jàpp sa ñàmbur mm-hmm. def li la war sa diggante ak sa jëkkër li ci des nga bàyyi ko yàlla di waxtaan ak sa jëkkër yokk communication bi l'homme est d'autre part pas tout le monde. day ko si teg yéen dangeen wax ay intellectuels mais boo julee pas euh, euh, d'une part. da nga koy yóbbuwaat d'autre part. l'homme est né infidèle pas tout le monde. non da ko si ñambaas boole ko si parce que loolu mooy loolu moo koy argumenté parce que man dama bëgg ngeen ngeen xam ne du ngeen ay tubaab ay ay africain ngeen ay sénégalais ngeen. ay sénégalaises ngeen. da ngeen dund seen tradition pas ngeen koy jéegaane bu ngeen royee saa yu ngeen dàqee mu juróol leen problème. tubaab bi na muy sëyee bu ngeen ko bëggee na yéen si seeni sëy da ngeen am difficulté. parce que ñoom dañoo am seeni aada ak seeni cosaan bokkul ak ñun suñuy aada ak suñuy cosaan. bañ tubaab bi buy sëyi kenn du ko muur kenn du ko xëpp dugub kenn du ko xëpp mboq kenn du ko xëpp ceeb. kenn du ko toggal laax. moo jëkkëram ñu muur leen kenn ku ne di seexal sa morom di ko raayante si ay kanam. Mm-hmm. yaa ngi dégg bu leen dugg nag si benn domaine bu nga xamee ni maîtriser woo leen ko saa su nekk seen sëy day am problème. yéen de boo leen xoolul waxoo leen teg ngeen loxo baa ngeen teg tànk. fu ñu koy teg. ndax dégg ma. fan lañ koy teg boo leen xoolul. Ah. waxoo leen. teg ngeen loxo maa ngeen teg. non da nga naan fii fii la fu ñu koy teg. Ah, ko ci ah, ah, fii moom lépp day leer soo waxee day leer man su ma ko waxoon dinaa ko dinaa ko leeral def. toj ko ba mu jariñ waaye teg loxo daal jàpp teg loxo la rek teg loxo nii teg loxo nii yëpp am na teg loxo teg loxo daal teg loxo la. non ba léegi dara leerul parce que ñi ñuy seetaan war nañoo xam parce que euh, dafa am gis ngeen euh, dafa am ñaata type de personne un euh, ba ba trois personnes ñoo xam ne ñoon ñuy seetaan te bokkuñu kii daf ñuy xool te du dégg te bëgg na xam li ñuy wax ci plateau bi kii daf ñuy xool di dégg di gis keneen ki du gis dégg lay def kon ñun lépp lu ñuy wax rek ñoo ñëpp dañ leen war a sóoraale man bu ma demee ba dugg ci benn point dama koy leeral ba mu leer rek loo ñemul danga fay toog. <laughs> Euh, ci tënk rek waxtu wi dañoo xoj xam nga Ibrahima waa mi ngi noonu man xam nga nee naa Ibrahima sax man. <laughs> Mhm. prési prési dafa ma sonal waaye maag moom du yomb ndax xam ne ne du ma ko may daal mu ngi noonu causes yi nag mm. dafa daal di bari. Mm. waaye xam naa ne dañ koy yemale foofu ba ci beneen euh, euh, numéro incha allah beneen émission. Mm-hmm. ñu gën a yaatal ndax am na ci bari yu ñu war a waaw mm-hmm. noo causes yi sax des na après su boobaa danañ jàll ci conséquences yi incha allah ci beneen émission. am na solo macha allah l' émission tire à sa fin Bale daam loo bëgg indi wala. non man kay indi wu ma daal lam kay lam la indi kay ñoom ñi yëpp dugg nañ ci wax nañ ci ndax jamono mhm. mhm. alal léegi. Mhm. sëy bari léegi dañ cee dugal alal bu njëkk ba suñu suñu papa yeeg suñu maam yi ñaar téeméer sax boo ko mataan am. am soxna. ut naa léegi léegi boo yore ñaar fukki junni sax ñu ne la moom yow ñaar fukki junni sax daa daa mën a luye baas. dëgg la nga nekk ci biir kër sax yoroo quoi yow yoroo say mag yi yor nangam yor mhm. dañ lay xeeb mhm. fan la war a teg sax duñ la ko teg wala duñ yemale mhm. comprendre boo fi indee jabar sax buñ koy dana boo xoolee sax ci diggante bii kër sax njëli sax du bokk njëli sax ñoo du bokk boo yoru yow sa njël dama na yëkkati benn 3000 jox la bu fekkee ke ke ko yor sa euh, soxnaam soxnaam moo aay wala dara euh. kër yëpp am problème ndax réew mi léegi moo yàqu dafa yàqu réew léegi bu njëkk baak léegi bokkut mooy lu doon wax sànq si diggante président Abdoulaye Wade président <laughs> Macky Sall noonu la noonu la demee. <laughs> rapidement ma bàyyi leen ngeen tàggatoo ñaaw président Adama incha allah. waaw si àll jabi. Mhm. Eh, jabi àll incha allah si kàttanu yàlla maa ngi nuyu eh, de passage eh, madame ñaa non violence aw buuru këram. waaye kañ lay am deuxième femme. madame Niang loolu yow rek laa koy laaj du euh, nuyu waa Afrique Dem Dikk Sénégal Dem Dikk Drak dakaar Dem Dikk ANEP association nationale pour l'éducation et la paix ANEP agence yéen ñëpp maa ngi leen di bëggee di leen ziar Kourjita euh, Nafi ma chérie yi euh, sama mbokk artiste bale taxaw bale sëgg maa ngi lay bëggee bu baax a baax du nuyu technique bi ñoom ñëpp ñoom Cissa ñoom Kumbis voilà ak ñoom ma Massamba bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp maa leen di bëggee di leen bëggee di leen bëggee di leen bëggee saa su nekk jërëjëf. na fi baadama incha allah. waaw Kourouzita dañuy wax ni rek divorce vraiment lu métti la kenn yéenewu ko kenn. Ah. Mhm. moo ci côté góor moo ci côté jigéen. Mhm. bu xasee ba am daaw xamal ni doon lu métti. alors dañuy sant yàlla daal di nuyu ñi nga xamante ne nii ñoo ñuy bëggee di nuyu aussi euh, sama famille sama tante munaas samay sœur samay xarit samay am di jaamu ma kenn di leen jaajëfal di am saa su ne contentement bokk ak yéen plateau di leen jox dig daje ba beneen. <laughs> yow bàyyil na fi. acca bale looy tàggatoo. waaw comme ni ko gars yi tàggatoo rek kenn ku nekk say famille ngay nuyu maa ngi nuyu samay famille man tamit di nuyu sama papa di nuyu sama yaay. <laughs> waaw di nuyu sama aaw buur këram ah. muy Kumba. Ah, yàgg na mu ah. yéen di nuyu sama doom sama sama sama sama taaw góor bi bébé Birane bu baax a baax di nuyu waa. Nioro euh, samay xarit ñoom euh, Raba Fall ñoom Bilal Fall ñoom Kutub ah ñoom euh, waaw bëri na waaw waa waa Nioro gépp maa ngi leen nuyu bu baax a baax di jox seen wàccuwaay voilà. merci beaucoup am na solo di jaajëfal Kumba mi jaax si kanam bi waa régie Massamba Sissa maa ngi leen di bu baax a baax sekk prompt rétablissement revient nous vite incha allah di leen jox digg daje ba ëllëg ci même chaîne même heure